ngir nga nekk candidat ci élection présidentielle faaw nga nag matal li ñuy laaj ci li nga xam ne moo di ay parrain loole nag ñi mën ko def ci anam yu wuute parrainage citoyen wala sax li nga xam ne mooy parrainé par des élus moom xalifa Sall nag ak plateforme bi li di taxaw Sénégal daal di nag fësal ana ban yoon wala sax ban xeetu parrainage la ñu utiliser ngir nag dëggalal seenu candidature ci présidentielle yu vingt cinq février deux mille vingt quatre ci réewum. Sénégal loole nag yàggatul dara euh, course ba démarré ñu dal di door li nga xam ne moo di parrainage ngir nag ñi nga xam ne bàyyi nañu xel wala am nañu yéene samp seen dënd daagaan baatu askan wi euh, ci jongante yi palum njiitu réew yi ñu dëgmal d'ailleurs nag li nga xam ne sax moo di direction générale des élections ñi nga xam ne ñoom lañu ñu dénk lu jëm ci direction euh, wàllu élection fii ci réewum Sénégal balaa yàgg dara des xaar ndi ñu publier li nga xam ne nag moo di Euh, spécimen jëm ci fiche d'enrôlement parrain yooyu euh, jamono bi nga xam ne nag euh, bëri na ñoo xam ne am nañ possibilité valider seen candidature ci nag gannaaw boo xam ne def nañu tànneef maanaam porter seenuy parrain ci li nga xam ne nag moo di parrainage des élus ñi nga xamante ni mooy député wala élus locaux ca geneen wet gi nag am ñoo xam ne ñu ndënd daal bàyyi nañu xel taxaw ko samp ko dëgëral ko ci beneen fànn loole nag mu bokk ca sax plateforme bi léegi nga xam ne moo di taxaw Sénégal euh, bu ñu sukkandikoo ci sunu euh, naataango yi nekk ca source a euh, ci seen libéré libération maanaam ci seen édition du jour niki talaata ji xibaar yi ñu génnee nag bokk na ca lañ ca fësal muy keneen nag euh, Khalifa Sall ak taxawu Sénégal jamono bi nga xam ne rek ñoom matal nañu lu ñuy sàkku ci ay député ngir nag euh, parrainer seen candidat boobee muy euh, treize Khalifa Sall nag daal mu ngi xam ne ñoom dañoo opté ngir nag li nga xam ne moo di parrainage citoyen maanaam dellu ci askanuk Sénégal compté fa benn benn ci xob ngir nag mën a matal li ñuy laaj ngir yóbbu seen candidature ca conseil constitutionnel di xaar ñu valider ko ngir ñu mën a bokk ci lang gi loole nag journal bi dañu xibaar rek. ñoom nag ci noonu sax ki nga xam ne moo di xalifa Sall joxe na ay instruction maanaam ay ndigal ñi nga xam ne ñooy ay kàngamam ñu ngànk plateforme boobee ngir nag ñu fexe taxawal akub équipe maanaam euh, taxaw akub euh, samp boo xamante ni ñoom ñooñu nag ñooy liggéey ci lu nu mel équipe boobu nag muy sàkk ci ñu constitué ko balaa aljuma bi li nga xam ne moom la ñu dëgmal gën gaa yàgg euh, akub comité électoral tamit dinañ ko taxawal ngir nag mën a waajal bu baax a baax élection yooyu moom ancien maire bu Dakar nag di wax ne comité boobe sax day nekk lu provisoire ndax nag dinañu ci enregistré ñi nga xam ne ñoo war a nekk seen prochain ralliement en tout cas lu ci mën a xew dees xaarandi ne moom mi di Khalifa Sall ak taxaw Sénégal nag bu ñu sukkandikoo ci sunu ray nag Actu SN xibaar bi ñu jëlee ko ca Sousa ñoom nag eh, jamono bi nga xam ne rek am nañu treize députés yu ñuy laaj ngir mën a valider seen candidature boobee ci jamono boobee nag daal ñoom dees opté li nga xam ne moo di parrainage citoyen bi maanaam dees xaar ci askanu Sénégal ñu dem nag compter fa seen i xob benn par benn ngir nag matal li nga xam ne moom lañ leen di laaj ci parrain ngir seen candidat nga mën a bokk ci présidentielle yu vingt cinq février deux mille vingt quatre fële ci réewum Sénégal di fàttali rek ne li nga xam ne nag moo di parrainage bi ca wetuk parrainage citoyen boobee am na ci li nga xam ne moo di parrainé. Eh, parrainage euh, des députés wala tollu ci 13 limbu lu mu gatt gatt wala sax li nga xam ne moo parrainage des élus locaux ay maire ak président conseil départementaux jërë ngeen def mbokk yi xibaar yi lii la woon ci bile vidéo yenen xibaar ak yenen xibaar ci yenen vidéo lay doon bu caalaan benen beneen yoon laataa loolu leen like di abonné ci sen chaîne Dakar DKR 221 HD ku di gan ci page bi tamit go ngi lay ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee lu ñu dugal ci vidéo nga bokk ci ñu koy njëkk a jot cant ak ngërëm ñeen na leen jërë ngeen jëf léeg-léeg yeneen xibaar ci yeneen i vidéo lay doon bu ci ngeen jëf